émission bi ñoo ngi ko def ci jubóo gi am diggante union radio associative ak communautaire yi URAC ak organisation gi saytu migration ci àdduna bi ñu koy wax OIM ci campagne bi ñu taxawal jagleel ko tukki mu jaarul yoon wi ñu duppe ko migrant comme messager wala boog migrant as messenger.
fii ci Afrika xale yaa ngi daw wutali Occident sunu yeggee foofu ca Occident ñu yabaat leen delloo si Afrika
kattanu yàlla ñu koy dimbandikoo seen ànd ak ñun ñu koy sagoo mbokk yi kon ñu santaat borom bi nga xam ni koo xam yegg moom la neex julliwaat tamit ci yonte yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam julliwaat ci saxaabaam ya ndaxte ñoom ñooy suñu bàyyi ci diine nuyuwaat leen bu baax fépp fu ngeen ñu mën di toppee moo xam ci biir réew mi wala ci bitim réew 103.2 wala mubarakcom point net waa diaspora bi yëpp ñu leen di bàyyi xel bu baax a baax fas yéene ñëwaat ak yéen ci seen ñaareelu numéro seen émission bi nga xam ni ñi di organisation internationale pour les migrants ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di Irak kuréel gi nga xam ne ñoom ñoo tënk rajo communautaire yi ñoom ñoo leen koy amal mu jëm nag ci wàllu tukki bi nga xam ni tukki bu war a jaar ci yoon la di bàyyi xel tamit ci mbëkk mi nga xam ne ñenn ci ay doomu Afrique danañ koy def di dem ca bitim réew te seen bakkan di ci des mu nekk lu jar a bàyyi xel bu baax a baax kon incha allah rabbi dañu fas yéene dikte leen benn sketch boo xam ne dañuy wax ni artistes yi ñoom ñooy seetu askan wi artistes yooyu andi nañ ci lu am solo suñu noppee nag ubbil leen téléphone bi ku ci mën a indi sa contribution ci 88 628 01 10 lay doon comme eggaguñ ci loolu ñuy bàyyiwaat ci xel bu baax a baax tukki bi nga xam ne. tukki bu jaar ci yoon moom moo gën bu jaarul ci yoon ndaxte dañ koy baamtuwaat fii ci Afrique rawatina ci doomu Sénégal suñu seetaan yenn médias yi dinañu gis ñi nga xam ne ñu ngi des ci biir géej gi wala yenn information yu am ci yeneen médias yi xam ne ñenn ñi ci désert bi danañ fay dund ci ay jafe-jafe yu métti te loolu lépp solo mooy bu fekkante ne mën nga toog sa biir réew liggéey ngir jariñ sa askan jariñ sa réew moom moo ëpp solo kon dañuy daal di wéy. déglu sketch théâtral boobu nga xam ne ñenn ci ay artistes andi nañ ko ci wàllu tukki bi nga xam ne tukki bu jaarul yoon la te muy faral di jur ay jafe-jafe balaay loolu ñu gërëm bu baax soxna Soda Marème moom la ñu àndal ci wàllu xarala gi ñu daal di déglu artistes yooyu ci li ñu indi ci mbirum tukki bi rawatina mbëkk mi.
théâtre bi ki leen ko baaxee di kuréel gii di OIM organisation internationale pour les migrations di kuréel gu ëmb lépp lu jëm ci migration mu bokk ci projet bi ñu dippee migrant comme messager maanaam way tukki wi nga bu kàddu li ko tax a jóg di yeete jëm ci lépp lu tukki mu jaarul yoon mën a jur ñi leen dégtal bi le théâtre di collectif artiste comédien fekk baax ci Kolda.
waaw Modou Mata ça va mën naa la gis waaw maa ngi fi yaa ngi fi waaw maa ngi fi alhamdulilah waaw jox ma li ma tàmm di jox yii Mata loolu amul de ah la moo fi am xaram dara cocktail waaw cocktail oui kon amul problème jox ma ko mais Modou yéen seen fi doxatul ah xamoo dara sa Mata te yoo xam nga ni hôtel bi moo nekk hôtel bi gën a mag ci gox bi ñu nekk waaye dafa ñu daan liggéey sax bàyyi nañ parce que dëkk dafa métti te ma fay fayatul dëgg la ma rek maa am ngor ma ne daa ma ko mën a dee parce que amu xalaat jàpp moom si mais fu ma amee fu ma jàpp rek damay dem baal ma baal ma jàpp waaw allo allo kookal la man la Xaadim Silla Xaadim si la man Xaadim Silla menn Xaadim si la Espagne waaw yée yée yée Xaadim ana waa Espagne waaye Espagne ngi fii di bee mais naka sedd bi ñun de Sénégal mu ngi tàng jër naqari ah waaye yow loolu bu nakaree ji yow la neex de booy mbaadu ah yow nee naa la ñëwul fii Espagne ah fii da ngay yëg am liggéey ah loolu laa la waatal ba loolu boo fi ñëwee di am liggéey Xaadim waaw xaram maa ngi ñëw ah booy ma ngi lay xaar de dinaa def sama kéem taan katak ñëw Espagne incha allah booy bu tàngee foofu yow la bu nakaree yow la mais l'essentiel man li ma tax moom mooy nga ñëw Xaadim xaram maa ngi ñëw jël sa diplôme yi bàyyi lépp ci ginnaaw nga ñëw da ngay ñëw rek yëgg liggéey Hmm.
incha allah dinaa ñëw Matar yàlla ñëw na ah xam nga ki ma doon woo nii kan la kookaa la sam benn xarit ñu tudd Xaadim xaadim ñoo bokkoon classe xamul woon dara lay wax ni mu dem Espagne ah gis nga ci dëkk bi waaw.
tabax na fi ay taax yu mag a mag a mag ci dëkk bi bàyyi li nga wax te loolu Espagne la ko amee ah mu ne ma hum may ñëw Espagne Hmm.
mooy tekki na eh waay Samba, am nga lu baax yii loolu kay ma ne ko woo nga naan ci guuxum soow ah maa la ko wax fi mu nekk nii waaw sama lépp laay jaay ah mbaa moto bi du fa la bokk xanaa dëggal mi wax lépp laa wax lépp moto bi moom tippoon naa ko waaye Modou ah mbaa yaa ngi seetaan télé yi ak yaa ngi déglu information yi li ñuy wax si ñi di dem Espagne ma ne Matar toog nga da ngay dee dem nga dee bàyyi ma dem ma wuti ji ma dee moom gën a toog fii nii léegi sax ñu ànd ma delloo caabi borom baal bi léegi ma baal bi dama ko tëj ma dem Espagne man de pare naa man maa ngi nii sa si yoon di dem ata ñu dem asalaamaaleykum maaleykum salaam papa yaay naam na ngeen def waay Jàmm rek kay.
alhamdulilah wallaay papa Naam.
yaay wàcc naa nag dama leen tabu dama bëgg dem Espagne fan Espagne il faut ma dem papa Espagne waaw waaw papa il faut ma dem il faut ma dem de ni ñu sonnee nii il faut ma génne ko il faut ma dem Espagne Modou waaw yàgg naa laa wax nag weddi gis nag bokku ci papa dëgg la mais bàyyi ma dem rek bàyyi ma dem rek bay ko mu dem waaw doom bu góor la wallaahi doom bu góor coono la xam wallaahi yaay bu bay ko mu dem wallaahi yaay kon nag comme nangu nga ah man de mënuma ci dara Kay.
comme ça yaay dal moo la nga dem Hmm.
incha allah di nga dem jërëjëf papa jërëjëf léegi nag lu may def Hmm.
damay dem sama gétt gi léegi waaw dem fa beneen nag ma jaay ko yokk ko ci li nga yor jërëjëf papa jërëjëf kontaan naa man mii sa yaay am naa juróom-ñetti fukki junne sama natt bu ma jël naa la may jërëjëf yaay bu kontaan naa papa yaay naam kontaan naa ngeen ñaan rek dégg nga incha allah ani suma soxna bi moom daal mu ngi woon ci biir ñu ngi ci biir mu ngi ci biir ah Waaw.
xaaral ma fekk ko ci biir ma wax ak moom incha allah waaw papa naam bëgguma bañati nag dégg nga ba fajar rek na ngeen ma yee dégg nga incha allah yow kay bàyyi ko sama loxo waaw ñii ñoom dañoo yoogul ba léegi Yacine Yacine ah yaa ngi ci wérdu gi pare naa pare naa ah waa kay waaw ana Modou moom nga xanaa yoogul ba léegi gisaguma ko mu génn de ah kon xaaral ma woo Modou naam papa yeewu naa yeewu naa maa ñëw ah ma pare nga waaw pare naa pare naa waaw waa kay
Ayda yow ni ja maa ngi ci yoon bi dégg waaw dangay dem ni ja nga na góorgóorlu bu baax nga toppatoo xale yi dégg nga waaw ni jaay boo demee bu ñu fàtte de bu leen fàtte Ayda nga xam nag du la yóbbu incha allah mbaa fàtte woo ci dara non non fàtte woon dara bëgg naa li Yacine Yacine naam na jaay waaye kaay ñu gunge Modou ba ci garage bi eh, ñu ñaanal ko waaw nañu dem li jaay waaw Modou naam papa mbaa pare nga sa bagage yi waaw pare naa, pare naa, waaw.
waaw nañ jël Modou naam papa yaa ngi di dem nga xam ne nag na nga xam lu la yóbbu bàyyi nga sa soxna fii nga bàyyi say doom fii da nga xam ne nag ah ñu fàtte de yoonu jàmm incha allah waaw waaw waaw noppi noppi noppi loolu jéeg bi baaxul ci moom jéeg bi baaxul ci moom noppi noppi dina baax incha allah
alhamdulilah rabbil alamin comme que yegg si nañ si jàmm
eh wàcc leen wàcc leen yëgg nañu wàcc yéen lan ngeen di def ci kaw wàcc leen waay eh kan moom moom sag bi man maa ko moom man booy kaay jël sa sag bi yow tamit kaan lay nelaw foofu booy gis ngeen ñale waaw gis naa ne waaw foofu ngeen di traversé boo leen yëgee foofu ngeen di fay ñu mun leen jàllale fii mooy Agadez nag
Zanam trois mois man wait viens ici waaw su arrivé maa ngi tu vas aller où moi boo dem fële Espagne tu as 300 000 francs avec toi juróom benn fukki junni waaw maa ngi moom il ne reste qu'une seule place prends tes bagages allons waaw ak ko ñu dem ñu dem salaamaaleykum waaleykum salaam man Modou laa tudd yow nag man Babacar laa tudd man Anta laa tudd man Ibrahima ah ñun de léegi nekk na ay mbokk sagam ñoo bokk oto bi pour dem Espagne man nag sama benn xarit ñu naan xaadim moo nekk Espagne moo ma wóolu waaw man ci baar laa laa doon liggéey baar bi nag léegi dafa doxatul daal mu ne ma su ma ñëwee Espagne rek dina am liggéey bu ma tax ma ne bàyyi ma dem xooli est naa am liggéey
suma waa ji yow daal am nga jàmm gannaaw dem nga ba am fi ngay dal ah man daal dama gis nu ñuy dundee fële ma ne man tamit foog ma dem parce que suma morom yi ma yoroon yëpp ñoom ñoom ñu ngi biir Espagne waxtu bu leen neex la ñuy ñëw Sénégal waxtu bu leen neex la ñuy dellu man tamit nag ma ne kon foog ma def loolu ngir jàppale sama yaay rek.
man daal moo leen waxee lan moo tax ba may dem doo leen ma sax gëm man sama yaay ay doomu jigéen rek la amul mosul am doom bu góor sama wujje yaay moo am ay doom yu góor ñooñu yëpp ñu ngi Espagne léegi ñoom ñu ngi defar seen yaay lool ak laal ñoom faale wuñu duñu duñu añ duñu ndekki duñu reer duñu def dara ma sonn looloo tax non non noppi noppi noppi noppi lépp dina jeex lépp dina jeex noppi.
yéen kii moom lu muy daw gis leen nu muy dawee mu ngi xët yoon bi mel ni kuy dem àllaaxira laa ilaaha illallaah
waay damaa xiif damaa mar may leen ma naan man tamit lu la nekkal maa la gën a xiif yàlla xam ne maa la gën a xiif maa la gën a mar damay dee muñ leen problème bi léegi ma lijjanti Ay.
léegi ma lijjanti ba ak ñoom. eh gardien eh eh dañoo xiif mangé eh gardien eh.
Ah mais dis donc, vous vous croyez où c'est vous Et allez fermer vos gueules.
waaw yow loo ñuy nar nii ñun am nañ droit dañoo fay kon bu ñu xiifee am nañ droit ne la dañoo xiif bu ñu maree tamit war nañ la ko mën a wax dañoo xiif manger.
Et allez casse-toi ou sinon je te jette. Allez, jetez-le moi.
wa yaay bàyyi leen ma bàyyi leen ma wa yaayooy wa yaayooy wa yaayooy mais bi ñu ñu ngi nii di xoolee ba ñu sànni Babacar moo noppi noppi noppi xanaa gisoo seen fetel yi bu ñu wax fii ba ñu wàcc ñu wala ñu rey ñu.
hé hé hé fii ngeen ma nar a bàyyi xaar leen ma xaar leen ma bu leen ma bàyyi fii xaar leen ma
Ah, Qui ose encore réclamer de la nourriture Qui Allez, putain de merde
wuy sama ndey ndekete ñu ngi ci ay loxo bangi la ñu dal
Allez, il faut encore payer. Donnez l'argent. Amenez Bignero. Donnez, donnez l'argent. Faut le payer.
ey man moo lii yëpp maa ko def sama bopp sama papa waxoon na ma ko weddi gis bokk ci sama xar yi ma àndaloon yëpp ci oto bi dañ dañ la sànni ci yoon bi léegi man rek maa ci des
eh ñii dem nañu bàyyi ñu fii ñun kese léegi lan la ñuy def nu ñuy def yow kay xam nga ne duñ fi toog ak ngelaw bu bare bi ànd ak poussière bu dul jeex amuñu pexe lu dul topp tànk oto bi ba dab leen moom rek la ñuy def. amuñu lu ñuy def sonn nañu guddi na liw bi bëri na foofu moom amul beneen pexe lu dul ñu toog rek daal di noppaliku bu dul loolu daal du ñu am jàmm.
saawaay ñoo ngi àndal fii benn xale bu jigéen seddaay baa ñu may rey lii duma ko mun léegi yow loo nar dama koy yëgg ci moom déedéet du ma la ko bàyyi nag parce que suñ diine santaane wu ko Par te- la- te ñun duñu ay mala kon du ma la Par la bàyyi force dama yëgg ci moom non non non du ma la bàyyi nga yegg ci moom dama yëgg ci moom déedéet dama ko kay.
lëj ma non loolu du fi mën a am tey bañ bañ ah ay ay rey na ma woy sama waa yéen li ngeen di xeex nii ngir liw rek li ngeen xam ne nag coono jeex na xalaat séentu leen fële liy tàkk fee.
fan fan mais mais oto la oto buy ñëw la.
waaw, waaw, waaw.
léegi kay coono jeex na.
waaw gis naa ko coono jeex na bu ñëwee rek nga xam ne moom ja am nañ jàmm.
Allez, bande de fainéants Debout Allez faire vos besoins, et le plus vite, hein
eh xanaa déggu leen li mu wax ku bëgg a tuuri ndox na wàcc dem tuuri ndox
Allô Allô, oui Vous les avez retrouvés Oui, ils sont quatre. Nous passerons récupérer les sous. Bande de canailles, on va vous sauver. Vous allez devoir payer avec vos corps.
eh lu ngeen di def nii eh lu ngeen di def nii bàyyi leen ma bàyyi leen ma da ngeen yëg sama kaw muy sama ndey bàyyi leen ma wuyaay yooy wuyaay yooy wuyaay yooy
Terminus Tout le monde descend ay waay
Et toi, réveille le vieux.
Nijaay Nijaay Nijaay way paa bi dee na way paa bi dee na xamoon naa ni dana dee coono bi sonal na ko ci Voilà, il est mort, il est mort. Pourquoi un homme de cet âge a-t-il pris le risque de braver le désert pour se rendre en Europe C'est vraiment honteux.
yéen a ngi gis ndekete yoo naar nii la mel paa bi dee na sànni nañ ko dem nañ jaay Anta ak Ibrahima yéen a ngi gis oto benn fii bàyyi yéen a ngi gis
Alors Police, police Sortez vos papiers Papers, papers Police Et alors
man man man man monsieur man man am naa passeport am am am regarde regarde
Passport, pas bon Pas bon Pas visa You haven't visa, you haven't visa Passport, pas bon, pas bon mu yee kii wér na naa man sama kayit yi baaxul ma wax ay waxi visa ma woon visa du avion laa doon jël kii wérul de
Yalla, yalla, yalla Allez, allez Entrez Entrez Vous tous, on va amener là-bas, là-bas, là-bas, centre de détention, là-bas, là-bas, prison, prison
la ilaha illallah kii fi lay ma indi fii mooy ñoom seen commissariat xoolal ñu lu ñu bëre xoolal fii mm, fii muy xataw xunu sax xoolal ñii ak seen ñaq yi xoolal ñi ni ñuy jeexee ñii de duñ lekk woyoo man moom jeexal naa man gaare naa fii kay kon ko ànd nañu si jigéen ñi fu ñu nekk ñu ne ma suma waajur suy fayee ma génn kon kay bàyyi rek ma jàpp ci yàlla
eh yow loolu lañ la wax man sénégalaise laa ni yow def naa fi fukki at fay naa fay naa ba sonn mus mënuñu maa bàyyi bu dee loolu lañ la wax dañ lay nax ah kon de yàqu naa la ilaha illallah xoolal fi ma nekk nii tey maa ngi nii si gasum wurus li ma bañoon def Sénégal maa ngi nii di ko liggéey poussière baa ngi ni fees del sama dënn xaw ma beneen matériel bu may liggéeyee bu dul benn pig buñ ma jox cey cey yàlla
Wallahi, il va parler paper. How mourir ici Wallahi, il va parler paper. Vous allez mourir ici. I kill you. Non, il va parler paper. Vous mourir.
yaay booy naam ana sama mag ji Moodu ay sama caat bu jigéen bi Modou dem na Espagne léegi mu ñëw te buy ñëw day indaale xaalis bu bare mu dog suñu buumu gàcce yi
ci yàlla man moo di tey la ñu dugal prison rayuma nit fenuma sàccuma bëgg dem Espagne rek pour tekki loolu moo ko waraloon waaye nag bu ma xamoon ma déglu suma papal li ma waxoon ma def Sénégal liggéey fa mu jaay nagam yi sama yaay jox ma tontinam bi tey fii laa mujjee cey àdduna allahu akbar
émission bi ngeen doon dégg ñi ngi ko doon amal ci lëkkaloo bi dox ci diggante URAC di kuréel gi ëmb rajo communautaire yi fii ci Sénégal ak kuréel buy saytu lépp lu jëm ci immigration jaaree ko ci campagne bi xeex tukki bu jaarul yoon ñu dippee ko migrant comme messager maanaam way tukki wi ŋàbb kàddu
ngeen wéy di topp euh, rajo Moubarak FM 103 point 2 wala moubarakcom point net ci bitim réew ñu ñëwaat ak yéen kon ni ñu ko waxee sànq rek émission bi ñu leen koy may di organisation internationale pour les migrants ak euh, Irak di kuréel gi nga xam ne ñoom ñooy saytu lépp lu jëm ci wàllu rajo communautaire yi ñaareelu numéro bi mu ngi nii euh, suñu numéro bu njëkk ki ñu fi dalaloon di Boubel Wagne nekk tukkikat nekk ci bitim réew. nekk fi sax ci réewu Sénégal ci jamono ji kii di Assane Sylla ci réewum Espagne la nekk ñu ngi koy xaarandi ci téléphone bi bu fekkee mi ngi ñuy dégg wala keneen koo xam ne bëgg nga indi sa contribution ci euh, émission bi ngeen di dégg te mu jëm ci wàllu tukki bi nga xam ne euh, tukki bu jaarul ci yoon la rawatina mbëkk mi muy loo xam ne suñu dégloo sànq artistes yi am na lu bari lu ñu ci mën a jàngat wax naa ko ci tàmbali bi dañuy wax ni artistes yi ñooy seetu askan bi ñi jot a topp sketch bi sànq suñ ci bàyyee xel artistes yi départ nañu fii ci réewum Sénégal jaar ci géej gi jaar ci oto yi ba jàpp ni egg nañ réewum Espagne waaye ci biir désert bi ñu jàpp leen fa egg ci xale bu jigéen bi nga xam ne moom moo àndoon ak ñoom comme jigéen kon loolu musiba la toogoon ci dëkkam moom moo ko gën ñi ci des ñu tëj leen kaso ci biir pièce bi laay wax keneen ki ci des di liggéey loo xam ne xëy na sañu ko bañ te saa yu ñu defee ne egg nañ fekk egguñu suñu seetloo aussi ci biir sketch bi joxe nañu seen xaalis te demuñu kon loolu lépp jar na bàyyi xel bu baax a baax benn woykat dafa doon wax ne ci wàllu tukki mu ni yow mi bëgg a dem te fekk jekk woo mu ni na nga muñ delluwaa ji waat ngir jaar ko ci yoon wi mu ni lu ko mooy rek soo demee xuus ca sa biir coono ba woykat bi waxaat ni yow mi bëgg a dem te fekk jekk woo mu ni na nga muñ delluwaa ji waat jaar ko ci yoon mu ni lu ko mooy rek soo demee xuus ca sa biir gàcce ga te suñu soxla ci biir sketch bi aussi dañuy mën a jàpp ne pour ñu tee xale yi ci wàllu mbëkk mi bokk na ci ñu fàttaliku suñu culture ñun Sénégal liñ moom bokk na ci boroom kër kii góor am baat ci këram parce que bu ñuy xool xale bi nga xam moom la moom moo doon tukki te benn xaritam bu nekk Espagne woo ko ci biir pièce bi dafa ñëw tàggu yaayam wala tàggu baayam baayam bañ ni ko mu toog ci réew mi pour liggéey mais yaayam dimbali ko parce que yaayam moo wax baayam ne ko na dem parce que góor mën naa dem fu ne c'est vrai góor mën naa dem fu ne mais ci ay conditions yu tegu ci yoon parce que moo gën a wóor surtout àddina bi ak fi mu toll léegi ñaareel ba tamit suñu jàngate ci biir sketch bi yaayu waa ji nga xam ne moo ko dimbalee quatre cent mille francs mais quatre cent mille francs ku ko am man sama gis-gis bu gàtt boo góorgóorloo ci biir réewu Sénégal mën nga liggéey parce que mbir bi moom du sori ak jege góorgóorlu rek ak barke. loolu bu ñu ci bàyyee xel bu baax kon yaayam jooju mën na ko dimbali ci 400000 am yooyu avant muy jóg di bëgg a dem di tukki mu dog ko dimbalee 400000 pour mu dem bàyyi mu aussi comme mooy rubaatu kër gi bu dee ci yoon moo tax ma ne pour ñu tere xale yu bëkk mi faaw ñu gën a sukkandiku suñu culture parce que ci la bokk ndax bu njëkk nit daawul dem waxuma sax réew ak réew waaye dëkk ak dëkk te tàgguwul waajuram surtout baayam. su ko bàyyee mu dem su ko teree mu toog kon culture boobu bu xawee bu leñee rek dafay doy waar jóg soobu géej dafay yomb te wax nañ ko sànq ay musiba bari yu musiba yu bari moo ci nekk ndax léegi àddina bi lu xew daanaka dafay tasaaroo fépp bu ñuy xool léeg-léeg ñu gis ci yenn télé télé yi ay africain surtout ay sénégalais moo ñu gën a soxal di dund ci ay conditions yu metti wala ñi nga xam ne seen ay njaboot dafa dem. xamuñu fu ñu nekk kaw ak suuf te li Omar Pène di wax ci benn woyam ne xawma alalu àdduna jaraluma naa ngi faaw bu fekkee noonu la ko waxee en tout cas dem bañ a ñëwati parce que mu ne dara gëdul nga ne sa yaay yaay mun la naam loolu waxin la nekk ci sa wetu waajur parce que dafa am solo ci biir réew mi aussi mën nañ fi liggéey parce que am na ñoo xam ne ñu ngi ci biir réew mi tey soo leen waxoon tukki bëgguñu dem kon loolu di wane aussi ni nit ki fu mu nekk bu góorgóorloo rek mën na fa tekki barkeel rek moom moom solo mais suñu seetloo aussi ci biir équestre bi ñu doon déglu sànq mu jëm ci wàllu tukki mi jaarul yoon te muy mbëkk mi mën nañ ci jànge tamit ne nit ki bu fekkente ni sa doom amul xaalis non bul ko xas parce que ki mu dendal am na xaalis. demoon na bitim réew wala am na daal en tout cas tabax na jënd na otoom nangam nangam nga topp sa doom xoolal doomu diw ni mu tekkee am nañ oto seen kër gi rafet na nangam nangam bu ko defee loolu tamit moom mën na ko pousser ba mu jóg dem jaar ci yoon woo xam ne waru fa woon jaar loolu tamit mën nañ ko jàngee ci biir sketch bi nga xam ne dégluñu ko sànq muy wax ci wàllu mbëkk mi tukki bi nga xam ne jaarul yoon li wër ba wër sax mooy baatu mbëkk ci boppam moom moo njëkk a garaaw xëy na nag nit ki mën na toll foo xam ne suy dem du doon moom mais loolu moo tax waxtaan baax am na période yoo xam ne boo ca tollee waxtaanal ak borom xel koo xam ne si ku gëm yàlla la parce que wax naa ko sànq suuf si moom yaatu na àddina bi tukki nag wàññiwul dara mais bu fekkee jaar nga ko ci yoon parce que moo gën a wóor ñenn ci wolof yi dañuy wax ni tukki genn wàllu mbugal la te tukki bu jaar ci bi yoon sax moo tax ñuy wax mais bu dee tukki boo xam ne jaaroo ko ci yoon moom boobu moom ay risques yu bari moo ci nekk te encore une fois ni ñu ko waxee ci information yi ñu jot ñenn ñi nga xam ne ñooy def ci biir géej gi wala sax di réer seen ay mbokk bu ko defee seen mbokk nekk ci jaaxle te nit kenn mënu ko jënd alal jooju nit ki doon wuti léegi amatu ko gisatoo ko ngay gis nit kooku moo ëpp doole fuuf moo gën tamit dal xel ci misaal damay joxe benn exemple nit su génnee àddina ay mbokkam dañoo xam ne génne àddina suñ borom moo ko dogal waaye dem réer kenn gisatu la loolu vraiment lu metti la te jeunes yi aussi war nañ bàyyi xel ci bañ ji bëgg a tekki wala bëgg alal tax ñu teg seen ay soxna wala seen ay doom wala seen ay yaay wala seen ay baay yenn fitna yi te mooy dem kenn gisatu leen am na benn jamono ma fàttali leen ni émission bi ngeen di déglu ñi leen koy ñu koy amal mooy organisation internationale pour les immigrants ak itam ku kuréel gi nga xam ne ñoom ñoo di Irak di saytu lu jëm ci wàllu rajo communautaire yi mas naa waxtaan ak benn waay boo xam ne mas na dem ci mbëkk mi moom nag ñibbisi na ci jàmm ci li ma wax seen gaal ma ngi am jafe-jafe ci booru Nouadhibou mais delsi na moom ci jàmm mais mu ne ma xëy nañ benn bis nee na romb benn affaire ci géej gi nee na ngaaka lañ ko wax ni ko moom la mais nee na xëy nañ suba gaal gi di daw affaire bi nekk seen wet ñuy daw ba jant bi so te affaire bi ñu ngi ko gis xamuñu fan la bopp bi toll ak gem bi mais loolu garaaw na sama waajur yu si nee na ma géej maanaam vague yi ni ñu ko gisee nii ñun ci tefes bi man nga dem ba vague yi fu muy jógee daf lay tiim nekk lu sori ci kaw kon loolu ku ci dugg génn suñ borom moo la dimbali. kon nag balaa ngay dugg nga seet bu baax a baax fi ngay dem fan la ci ak ban demin nga ciy dem maa ngi doon laaj suñu invité bu njëkk di buubeel wañ nekkoon tukkikat nekkoon ca bitim réew. di ko laaj ñi nga xam ne ñoom ñooy yore gaal yi fan lañu bokk ci ban askan loolu xaw ma ko quoi mais fee bi moo ma intéressé ma laaj ko ne ko askan ñooñu loolu ñu def ci société bi askan loolu la ñu war a def ci àddina bi mu ne ma non ñooñu moom suñuy lim ñoo xam ne dañuy dañu dañu rey nit il faut que ñu bàyyi leen ci xel parce que yàpp ay nit aussi ndax xaalis amoo benn sécurité jaaroo ci yoon ay nit ay ndaw ay góor ay jigéen dugg ci biir gaal nga départ ak ñoom jëm foo xam ne te géej moom dafa doy waar li Omar Pène wax amul bànqaas bañ ci jafandu kon loolu lu jar a bàyyi xel la en tout cas daal may fàttali ni émission bi moom ñi di organisation internationale pour les immigrants ak Irak ñoom ñoo leen koy may di wax ci wàllu tukki bi nga xam ne tukki bi jaarul ci yoon la muy mbëkk mi te muy sànq suñu ay doomu réew di sànq tamit ñenn ci ay doom ci Afrique te ñooñu ëllëg ñoom ñoo war a liggéey réew mi ñoo war a liggéey Afrique ku gëm fa nga ne te góorgóorlu. te liggéey mën nga jëm kanam loolu jar na bàyyi xel suñu xoolaatee biir sketch bi nga xam ni artistes yi indi nañu ko sànq mën nañ ci jàngee leneen nit ki mën ngaa xeeb li nekk sa réew wala li nekk sa dëkk mais soo génnee nga nekk ci leneen wala loolu nga doon bañ sa biir réew soo demee ci beneen réew nga di ko jëf loolu mën nañ ko ci jàngee mën nañ ci jàngee tamit parce que moom benn copain bu nekk ci bitim réew ci Espagne. la wax ni moom moo ko woo ñu ko ñëwal boo ñëwee fii am liggéey lépp baax muy dem farul egg ok bu demoon lan la fay fekk yàlla rek a xam mais aussi il faut ñu xam ni wërsëg yi dañoo wuute du diw dem na rek man dama war a dem non du noonu de wala diw dem na am na nangam rek man il faut ma dem pour ma am nangam parce que nit ñi bokkuñu yàlla moom moo bind wuutale wax naa ko sànq am na ñi nga xam ne dañu dem ci bitim réew am ñibbisi mais bu ñu ko jaaree ci yoon moo gën mais am na ñoo xam ne bu ñu demee bitim réew. mais du ñu am kenn ñaangalu ko kenn mais yàlla moo defee noonu am na ñoo xam ne dañuy tukki mais seen sens suñu borom def ko ci tukki faaw ñu dellusiwaat ba fi ñu jóge woon doog a am teraanga loolu am na parce que loolu mbiru suñu borom la ñu bàyyi ci xel bu baax kon li ñu wax mooy tukki bi nga xam ne moom moo di mbëkk mi euh, te ay doomu Afrique ay doomu Sénégal yu bari ci information yi ñu jot ñu ci nekk ci ay jafe-jafe ñenn ñi suux ci biir géej seen bakkan des fa ñenn ñi aussi yenn information yi suñ koy am ñu dem réer seen ay mbokk kenn du xam fan lañ nekk ci kaw ak suuf ci loolu la ñuy wax euh, bu fekkente ni mën ngeen ci bokk ñi nga xaarandi Assane Sylla en tout cas moom Modou Modou la waxoon nañu dina indi contribution am nekk ci réewum Espagne ñu ngi koy xaar ci 88 628 01 10 ñu déglu benn tampon musical del si waat
fii ci Afrika nanu fexe xool lu ñu sàmm dundu gune yi gën a mën a doon lu ñu tànn bu ëllëgee ñu mën a jiite si lu ñu leen ci laaj ñu mën ko defal lu ëllëg adduna bi dafa dof wala maa dof déedéet fooguma ko adduna bi dafa dof wala maa dof déedéet fooguma ko ah déedéet dofuma yow yaa dof yow mi nga xam ni système bi def la jiital lekkatoo naanatoo talatoo dundal doo toll dëkk ci kër ci kër gi aduna jaxasoo na aduna daa soppeeku na ah ñoom maam lu ñu mës a am bokk ko lu ñu mës a xam weccee ko jamono bii di dox jamono bii di dox ba kenn talatul moroomam kenn faletul moroomam kenn fokkatul moroomam bopp sa bopp bu bëri am yam ci sa bopp bu bëri fii ci Afrika
xale yaa ngi daw wutali Occident sunu yeggee foofu ca Occident ñu yabaat leen delloo si Afrika
te ca Occident fële ca réew nit ñu weex ña xeex ba nga jooli xale yi di dee loo ko waral
ngeen wéy di topp rajo Moubarak FM 103 point 2 ñu émettre fii ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall fii ci diwaanu Diourbel ñu ñu topp ci yeneen euh, dëkk ci internet bi wala sax diaspora bi moo tax ñuy wax émission bi ngeen di topp mooy seen ñaareelu numéro émission bi nga xam ne ñii di organisation internationale pour les migrants ak euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di Irak di kuréel gi nga xam ne ñoom ñoo tënk rajo communautaire yi ñoom ñoo leen koy may li ñuy wax ci wàllu tukki bi nga xam ne tukki bu jaarul ci yoon la te bu jaar ci yoon gën koo fopp gën ko wóor tamit tax euh, dañ koy baamtuwaat bu ñu xoolee euh, ci ay ndaw yu bari ci li ñu am ci yenn information yi mm, yenn xale yi mm, seen bakkan di des ci géej yu doomu Afrique di doomu Sénégal yenn ñi nga xam ne dañu dem réer kenn dutu leen gisati parce que sànq étiquette bi ñu doon déglu jàngal nañu lu bari waxoon na ko sànq dañ ñëwoon artistes yi ñooy seetu askan wi mais am na solo muy étiquette bu am solo nag parce que tënkal nañu ka xaritam woo ca Espagne mu jóge ci Sénégal war koo fekk réewum Espagne ak ñeneen ñi nga xam ne daje na ak ñoom ci gaal gi problème yi ci am bari na trop wax nañ ko sànq bi ci njëkk mooy dem nañ egguñu ñenn ñi euh, jàpp nañ leen ci biir étiquette bi te jën kaso kenn ki mi ngi gas wurus hmm? te nanguwu ko woon Sénégal wala nangul woon liggéey bu mel noonu mbaa bu ko jegee benn jigéen ji egg nañ ci moom ngeen baal ma ci waxin bi mais en tout cas ci biir sketch bi loolu la ñu ci jàngal yaayam wala bàyyi waa ji toog wala sax rakkam bu jigéen di xalaat fan la frère am boobu nekk encore une fois loolu lu metti la lu metti la parce que sa frère dem xamoo mi ngi ci kaw xamoo mi ngi ci suuf lu doy waar la moo tax bu tukki amee tamit wala mënta ñàkk ñu jaar ko ci yoon moom moo gën a wóor li ci des nag dogal la ñu bàyyi ko loxoy suñu borom mais en tout cas kuy tukki boo waajee na nga war a waajee jaar fi nga war a jaar bon euh, bu fekkee xam nga waaj ci biir pièce bi won na voilà ñu jéem a jël mbokk mi nekk ci ligne bi ci 88 euh, 628 010 salaamaaleykum waaw ah sore daa mel ni kooku ñëwul salaamaaleykum ah bisimilah sëñ Assane ñu ngi lay jaar. ayca ñu ngi lay dalal ci Moubarak bu fekkente ni dégg nga sketch bu doon jàng jàll léegi di wax ci wàllu tukki bi ah waaw bisimilah Assane. Hmm. aha mhm alors waaw maa ngi lay dégg bu baax Assane. ah d'accord baa ngi sa jom. eh baa ngi sa ngi sant bu baax jom. aha waaw wax nga lu am solo.
waaye da ngay gis koo xam ne dafa ne ci néeg. bëgg a gëm ca néeg ba ba tax.
waaw Baye Messa Diom dañ koy gërëm bu baax muy auditeur bu Moubarak gërëm ko bu baax ci digg bi Baye Messa li des yàlla na ko yàlla def xéewal gu baree bari am na solo andi na contribution bu am solo mooy ñu mënul nañuy dimbali. wala boog ñi man nañu dimbali ñu mënul lu am solo la parce que wax naa ko sànq loolu dafa bokk ci cosaan bi nga xam ne moo lal Sénégal te dama ne suñ bëggee tere xale yu mbëkk mi bokk na ñu dellu suñu culture lu ñu moom loolu moom nañ ci bàyyi xel bu baax a baax exemple mooy jox rek mooy sketch bi jàll sànq il faut que ñu dellu ci suñu culture lu ñu moom te wax naa ko sànq mooy borom kër am kër ci baatam am baat ci këram. dafa am solo soxna si tamit jox boroom kër gi baatam donte parité am na yee seen ay njaboot parce que ku lay njëkk ci néeg bu lëndëm dañuy war dañuy wax ne moo lay won fi ngay toogee mais Baye Meysa Diom laay ñëw sànq ci intervention bi lu am solo la maa ngi lay gërëm bu baax Baye Meysa di la ñaanal xéwal di nuyu waa Sàmbe boo dendee ak nit dëkk ak moom mënul dara yow nga man yor sa ñaari oto wala ñett car macha allah tabax sa kër ba mu egg ci kaw warul tax nag moom mu bëgg a mel ni yow jël bakkanam jaay ko mais aussi war nga ko dimbali parce que loolu aussi bokk na ci dimbali état wu Sénégal ci li mu bëgg ndaw ñi toog liggéey ci réew mi wala sax bu ñuy tukki tamit ñu jaar ko ci yoon. ma ne loolu ku ko def yaa ngi dimbali réew mi nga xam ne fi nga dëkk te mooy ki nga dendal nga xam ne mënul dara muy góorgóorlu ci benn mbir nga fexe koo jàppale pour mu jëm kanam. loolu aussi bàyyi meesa lu am solo la lu am solo ci li ñuy wax ci tukki bi jaarlu ci yoon bàyyi meesa sa wax ji gàtt na mi am na solo ñu ngi lay gërëm bu baax a baax parce que aussi loolu encore une fois damay wax ne dimbali état wu Sénégal la mais dimbali Afrique mais dimbali Sénégal ci ay doomam yi nga xam ne ñi ngi dem ñenn ñi des ci géej gi wala ñu réer kenn dootu leen gis bu fekkente ne mën nga dara fexeel ba ki nga dendal man dara nga jàppale ko ci dara. mais bàyyi ma si li mu wax dëgg la fii mën nga gis koo xam ne day am lu bari benn xale nekk ci wetam di góorgóorlu sampa atelier am wala taabalam wala dara mu di ko romb gauche ak droite du ko dimbali ci lenn te loolu aussi foog ñu bàyyi xel ne waxuma ni ñëpp ñoo koy def nag mais lu am la nañ fexe kon ba dimbali xale yi ci fi ñu nekk bu fekkee dañu samp taabal wala ñu ubbi atelier di fa góorgóorlu ba nga xam ne seen xel du nekk ci dem ci dem bu jaarul ci yoon la ñuy wax parce que tukki sax mënul ñàkk ci àddina mais ñu jaar ko ci yoon foofu la ñuy waxee mais nit ki boo ko bàyyee ba mu xonet bu duggee ci yenn yi tamit yow am nga ci part de responsabilité c'est-à-dire pour xeex mbëkk mi kon man sama gis-gis bu gàtt li bàyyi mi sa wax lu ci am solo la mooy faaw ñu gën a dimbalante gën a jàppalante suñu numéro bu njëkk ci émission bii nga xam ne dañ koy fàttali ñi leen koy may mooy organisation internationale pour les migrants ak Irak bi nga xam ne moo tënk rajo communautaire yi boobu loñ moom bañ ko laajee waxoon nañu aussi ne mi ngi bàyyi loo xel suñu autorité yi ñu gën a xool ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ca bitim réew te indi dara bëgg koo samp ci réew mi wala ci dëkk bi ñu bañ a toog sax bañ ñëw ci ñoom mais ñu fekk leen waxtaan ak ñoom wala ñu woo leen waxtaan ak ñoom ñu xool naka la ñuy organiser woo ñoom ñi nga xam ne nekkoon nañ ca bitim réew te yàlla may leen dara. ak ñi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi te yàlla may leen dara ñu jéem a organiser wu xool nan la ñu mën a def ba gën a jàppale xale yi pour que ñu mën a toog parce que encore une fois wax dëgg yàlla dugg ci géej ci gaal goo xam ne xamoo fu muy teere ji xamoo ñaata waxtu lay daw ci biir géej gi xamoo lu ngeen di daje ci biir géej gi xamoo boo demee réew ma nga fay dem loo fay fekk déggoo seenu làkk xamoo fa kenn non vraiment loolu danger bu mag la quoi wax dëgg yàlla bu dee yàlla dëgg rek la bëgg. voilà dañu gërëm bu baax Baye Messa Diom di ñaanaat keneen ku mën a indi contribution am ci 88 628 01 10 ci wàllu mbëkk mi la ñu wax te xale yi ñun ñëpp ñoo leen jaboote te xëy na émission yu mel nii aussi xale yi mën nañ ko dégg fekk ku doon waaj bàyyi xel ne jafe-jafe yi bari na ci yoon wi lool lool lool lool mosuma fa dem wante sketch bi jàngal nañu lu bari te dañuy wax ni artistes yi ñoom ñoo seetu askan bi kon danañu xaarali aussi Assane Sylla wala keneen ku mën a indi sa contribution rek en tout cas li ñu wax daal mooy wàllu mbëkk mi nga xam ne tukki la boo xam ne jaarul ci yoon wax dëgg yàlla maa ngi doon waxtaan ak benn Modou Modou aussi boo xam ne ci ni ma ko waxee def na ci ñetti réew mais mi ngi mujj ci réewum Italie wante nee na daal moom ku ko joxoon visa sax nee na jox ko en tout cas kayit yi mu war a demee yëpp nee na jox ko xaw ma un million xaw ma cent mille franc la ma wax nee na kon cent mille lay jël mais du tukkiwaat te kooku yàgg na ci bitim réew kon genre yooyu dañu daal di waxtaanal parce que dina tax xale yi yenn risques yi ñu jël di dugg ci biir géej di dem te xamuñu fuñ jëm te aussi àddina bi il faut que ñu xam ne xam nga sànq ci biir sketch bi mosuma fa dem mais wane na ni ci biir tukki bi am na ñoo xam ne ñu ngi ci àddina bi te li ñuy dox du lu jub te mën nañ daje ak tukkikat loolu moom am na fépp sax foo demee ci àddina bi mën nañu daje ak tukkikat jël xaalisam saay-saaye ko yàqal ko àddina am ci lu bëree bëri quoi kon loolu aussi tukki boo xam ne jaalu ci yoon ay risques yu bari la il faut que nit ñi bàyyi ci xel surtout suñu ndaw ñi nga xam ne ëllëg ñoom ñoo war a jariñ réew mi di réewum Sénégal xam nga bu beloñ moom nee na moom tukkikat la yàgg na ci bitim réew maa ngi ko nuyu bu baax di ko ñaanal xéewal ak sëñ bi ñang moom it nekkoon fële ci réewum Italie te nekk fi ci booru gaar bi maa ngi koy nuyu bu baax a baax ak doomam jooju nee na nit suy dem bitim réew nee na africain yi wala sénégalais yi buy dem bitim réew nee na ñetti force yi moo am nee na benn bi mooy xel benn bi mooy doole benn bi mooy doole yi poos maanaam am am nee na nag Sénégalais bi en général suy dem bitim réew ñaari force yi moom da koy yóbbaale nee na benn bi mooy xel benn bi mooy physiquement dooleem bi manqué nag mooy dooley poos kon di bàyyi may sa wax sànq suñu gënee organisé wu ba xale yi am lu ñu jàpp tamit dina gën a baax te dellu suñu culture aussi mooy joxaat kilifa yi seen baat parce que loolu dafay am solo mais nee na Sénégalais bi su demee ci bitim réew nee na ñaari force yooyu moom mooy. doole physique ak doole xel nee na foofu lañ koy ñàkkee ba mu jeex tàkk même bu fekkee am naa la nee na bu ñu bisee ci biir réew mi ci ni mu ko waxee moom mën na sax sonal ñi mu nekkal parce que conditions yi mu doon dund foofu ak yi nekk ci biir réew mi du benn loolu aussi suñ mbokk bi njëkk a dalal ci première émission bi ñu njëkk a amal mu jëm ci wàllu tukki bi nga xam ne jaarul ci yoon moom moo ñu ko wax ñu wéy di leen xaar nag ci 88 628 01 10 suñu sañoon aussi dégg leen. comme ni ñu dégg Baye Messa parce que njaboot gi ñun ñëpp ñoo ko bokk voilà ñuy xaarandi aussi suñu mbokk mi nga xam ne nekkoon na ci réewum Espagne te waxoon doxuñu kàddoom ni dina dugg ci biir émission bi te tamit kilifa la comme joxe na kàddoom jàpp nañu dañ ko dégg daal parce que moom tamit ay conseils dafa am solo parce que kilifa la voilà kon daa mel ni ah waaye soxna sax nee na ma yëf yi jaax na tàkk voilà kon ñu gërëm leen bu baax ci ànd bi ak ñun waxtu yu moom moo ñu dab li nekkoon seen ñaareelu numéro. seen émission bi nga xam ni ki leen ñi leen koy amal moo di organisation internationale pour les migrants ak itam ñii di Irak di kuréel gi nga xam ne ñun ñoo tënk rajo communautaire yi ñu gërëm leen bu baax ci ànd bi ak ñun lu jub ñu koy sante borom bi ci moom la lu ci dëng nag ci ñun la lu baax lañ ci jublu woon daf di yàlla kese moom moo mat ñu ñaanal leen war a waay jàmm bu teer ci gaarum gëneel jox leen dig daje ci beneen émission kon bu jëm ci wàllu tukki bi jaageen jëf ñu gërëm bu baax soo dama dem bi nekkoon ci xarala gi.
émission bi ñoo ngi ko def ci jubóo gi am diggante union rajo associative ak communautaire yi URAC ak organisation gi saytu migration ci àdduna bi ñu koy wax OIM ci campagne bi ñu taxawal jagleel ko tukki mu jaarul yoon wi ñu duppe ko migrant comme messager wala boog migrant as messenger.